Moi, ce que je veux dire, 0,2, c'est 0 bidonville, c'est 0,2, c'est Bilegnec. Donc, euh, Kounek, sous défait Goham, c'est-à-dire Rio ou Mbède, on l'a fait comme ce qu'on a fait, donc c'est ce qu'on a lancé. Pas pour l'exécution du bus, mais pour déclencher un élément de prise de conscience sur les gens, sur les gens qui ont des problèmes parce que loo mën a def nous àndul euh, presque investissement pour nul Soit soo defaree tali investir des fi goudron et cetera mu ça ne sert à rien du dëgg nga defay jardin yu melni mutilim xalé suñ fi ñëwee di fo wala bu mag ñëw di fexlu li ñuy noy daf leen di feebar alors que féexal seen xol lañ moo leen indi won gis nga ñu def pour ay au pluvial, nous ñu dugal ci mais ni fosse pour euh, def euh, ndox mu la hein donc alors que su taw bi ñëwee euh, ñu ne maire defu fi dara alors que nous na fa ñoom nous ko ñoom bouché donc une question de prise de conscience là parce que mënuñu tek policier wala service d'hygiène derrière ku nek ku nek parce que sa cet yow ya koy yorel sa bop donc lii nguur yorewul set nit moy yoreel set setalam ñun mun nañ indi brouette mun nañ indi pelle mun nañ indi camion UCG mais lu dess li yaa koy defal sa bop donc lool la parce que rom lañ ay kër yo xamni ñom dañuy seen kër dafa set comme kër mère gisee ñom Baba Galle da ngay gis dañ ko lay c'est très c'est très bien donc ku nekk su doon def loolu problème du am du dëgg waaw mooy wax naa Nimzaat moom pour ñu mobiliser ñun defoon nañu opération bi Daaru Khan ak UCG yàggul ñu ngi si yombul nag parce que xam nga aussi euh, insalubrité dafa ànd ak aussi ak pauvreté parce que il faut que nga am ay les moyens pour que partout mu am ay bac à ordures partout aussi car bi kii bi mun fa jaar Daaru Rahman par exemple amul woon euh, euh, kii bi daaw fa jaar mais mairie bi moom moo signé contrat ak UCG pour mu yokk ko ci ay points de collecte am te mairie bi di fay donc ñun effort yooyu la ñu mën def donc population yi aussi ñu def euh, seen wàll dégg nga da ngay ñëw ñii ñu ngi jaay ci mbedd mi ñu nekk nii après sànni fii sànni fële bon wax nga mën mais li ñu xamul conséquences yi ci ñoom la tu vois parce que sooy feebar kuy feebar après ñoom ñooy feebar dem hôpital il faut payer et cetera et sonal say wajur li nga waroon investir ci école wala nga war ko investir ci kër ci sa ay xalé ci sa ay doom nga jënd ko ay ordonnance té loolu mun nga ko éviter su fekkee vraiment da nga jëma a set jërëjëf.